bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi nuyuwaat bokki taalibe yëpp bokki jullit yëpp bokki dëkkandoo yu Tuubaa yëpp di jotliwaat nuyoo samay kilifa ni ma ko baaxoo defee rawaat na bu may soobu ci liggéey bii ñu yóbbu jóge ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha mii Serigne Touba moom dëkk bi jaar ci Cheikh Bassirou moom Serigne Abdou Khadir mii sunu jëwriñ ci liggéey màggal gii ak liggéey Serigne Touba yu bari ko Serigne Mountakha def loo mu sunu jëwriñ te nuyoo boobu jaaraat ci Serigne Cheikh Jëmb Fall mi jiite xalifa mi xalifa général Baye Fall yi loolu lépp naa leeral li tax ma wax nuyoo bi fi mu waaye nuyoo bi mi ngi jëm ci bokki taalibe bi yëpp ma jiital kilifa yi ci nuyoo yi ak jëwriñ yi ak ñeen baaxoo àndal liggéeyu mbale mi ñëpp ñoo xam ne kàddu yi soññee ci mbale mi rek la jëm mbale mi waxtu wu ne bu nu koy soññee dañ koy delloowaat ci ginnaaw seen ndigal la nam nu dikkale woon suñ Cheikh Mamadou Lamine Baara joxe suñ Muntaxa ndigal ne ko dama bëgg ñu setal dëkk bi balaa gani Sëriñ Tuubaa yi ñëw sëñ Muntaxa bi mu ci kër ga mu ne ma jox na ma loo xam ne joxaat naa la ko na nga dem fa ñuy nase màggal gi seet ñu la booleel ngeen taxaw seetu dëkk bi te na dem ci sëñ Saa Jëm Faal mi jiite njabootu Seex yëpp dañu wax ko ma defe ko noonu ci at mooma sëñ Muntaxa moo taxawul boppam mbale mi di xëy yandu ci kër sëñ Tuubaa gii ba tàkkusaan ñu def liggéey boobu ci toll juróom-ñetti fan lépp àgg ca déwén sa ba sëñ Mamadou Lamine Bara waxee sëñ Mountakha ne ko màggal gi na la ko sëñ Bassirou sëñ Abdou Khadir di taxawul ndax liggéey bi daaw sonn nga ci na ci mag sëñ Bassirou sëñ Abdou Khadir waxoon sëñ Mountakha ne ko damaa bëgg nga wóotal ma ci say jëwriñ ñoo xam ne damay ànd ak ñoom liggéey bi sëñ Mountakha boole nu ne ma naa bokk ci ñaan ak sëñ Cheikh liggéey bi sëñ Cheikh Bass la nga féete woon ci liggéey bi daaw dara ëpp ko ci solo kon na nga ca féetewaat te mooy seetal dëkk bi ma ne ko kon damay ñaan rek ñama ko àndaloon taxaw ko bam liggéey bi mel na wala mel dama bëggoon ñu maye ma ma àndaat ko ñoom ba ko ànd ak ñoom dina mën a sama xel dana maa daal ci ñu taxaw ko nañ ko war a taxawoo mu mayoon ma loolee te ñoo ma ko àndaloon nag ñi jiitu woon mooy Baye Fall yi sëñ saa jëmb waaye waxtu woon damay wax ne bu ñu waxee sëñ saa jëmb wax Baye Fall yi naa ci seexi Serigne Touba yëpp ak taalibe Serigne noo bokk fun nekk bokk fu jëm bokk ñu doxee kon noo bokk lépp liggéey Serigne Touba bu nit noo ko baaxoo ànd kon lii noonu rek lañ koy waxewaat noonu lañ koy doxewaat àndal ko bokk kilifa yëpp àndal ko bokk yëpp ak kilifa yëpp kon nuy soññewaat nag war a jubluwaat ci liggéey bi liggéey bi nag jekk niil daan demee ndax benn sa panu safar lañ ko daan tàmbali waaye buñ masaan weesu bisu ashora bi ci la ñuy tàmbali réunion yi ak soññe yi ginnaaw buñ diisoo kilifa yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci kilifa yi diisowaat kilifa yi ndigal noo ko jëlee ci sëñ Muntaxa ak sëñ Saa Bas jokkowaat ak kilifa yi mooy tàmbali sëñ Saa Jëmb jokkoo na ma moom dem naa fa léegi jot na ndigal foofu yëpp woote na ab réunion démb jëwriñ yëpp ñëw nañ jot lewaat naa ndigal li ngir ñu ànd waajalaat liggéey bi ñi ñu ko daan àndal nag mu nga tàmbalee ci ñi jiite mbooloo yi ci dëkk bi ak li ñuy wax ay chef de zone dëkk bi ñu seddale ko ay zone yoo xam ne bu bu nekk daa am ku fa nekkal liggéey bi ak ñi jiite daayira yi ak ñi jiite benn yi ak waa maire bi ak ñëpp woo naa leen démb waxtaan naa nañ tàmbaliwaat nañ sóobu nañ ngir waajal liggéey bi nii nag lañ ko daan defee bu ko defee mu jottali ba ñëpp yéeg ni ñu ngi waajal liggéey bi ba ba ci biir dëkku Touba ak biir réew mi ak bitim réew fooy man noo mën a jàppee ci liggéey bi nga jàppee ni ci noonu bu dee waa biir Touba mi ngi tàmbalee ci borom oto yi tàmbalee ci regroupement benn dëkk bi noonu la ko daan defee ki jiit regroupement chauffeur yi ñu wax ak ñi moom auto yi ñuy déggoo bañ jox ma auto yi boobee buñ ci àggee ba liggéey bi àgg lañ ci daan dolliku mooy maire bi am na wet gu ñu ci daan féeti gu wér rawat lu jëm ci gasoil bi état bi lam ci daan jàppee dafa daan jaar ci ministère ba jaar UGC seen coordonnateur ñëw yabal ndawam yi nekk fii lañ war a jàppe lépp jàpp ci at mooy noonu lañ ko doon defee noonu rek lañ ko dinañ ko séentuwaat ni lañ leen tàlleel loxo di leen waaj dégluwaat bu defee nag ñi war a liggéey liggéey bi njëkk bi nag mooy ñu jiite mbooloo yi nga xam ne mbooloo yi nag mooy ñii génn di setal ñi ñu ko àndal ak mooy ñu leen taxaw mooy chef de zone yi bu noppee oto yi nañ ko daan defee oto yi ñëw ñu jox Baay Faal yi jox daayira yi lii jox zone yi yii ñun ñëpp génn ñu bale dëkk bi noonu bëgg ñu def ko daan waxee it niñ koy gën xam di ko gën a ba muy gën a yomb noonu la doon demee daanañ ko def ci juróom-ñetti fan ñu ñëw juróomi fan juróom benn fan at yëpp benn bis lañ mbale mi ak tonn bi doon ñaari fan lépp di ñetti fan ñu bayaale bàq yi ci biir ñetti fan ñeenteel bu ñëwee ko ren nag dolli nañu liggéey bi dolli nu ci ab sëkk sëkk boobu itam ñoo ngi xalaat ne faawum lu mu gàtt gàtt jël nu ñaari fan ak benn dëkk bi yëpp ak oto yi ñàpp yëpp mu xalaat ne kon ci biir ñetti fan yi bu dëkk bi setee dañu am ñaari fan yoo xam ne oto yëpp dañuy dem ci sëkk bi mat téeméeri oto nangam bu ñu di sarse ba ngoon di sotti danañ fi def lu ñu mën a xam donte néewuñu dëkk bépp mën a sa ko setal ndax dëkk bépp daa yaatu te fépp dim ndox te day bari foo xam ne boo ko sëkkeetee nga ngëccoo ko daanaka la ngay seetu du am njëriñ te bokk nga ca it bokk nga ca ngay sëkk ko tey bi ci suba saa mu tawaat ndox ma ñëwaat waaye nag dañuy def liñ man lépp suñu am kàttan rek te lépp nu fas ci yéene liggéeyal sëriñ bi sellal ko dëkkam bi setal ko dëkkam bi wàññi jaaxle dëkkan ñi fi dëkk àggale yéene sëriñ bi loolu rek lañ ci façon te moom lañ ci soob bi moom lañ ci sooboo noonu lañ koy doxee bokki taale bi yi ma bokkal taxawoo gi itam ginnaaw bu ma leen sante jottali seenu taxawaay bu rafet nonk ànd waroon nañoo bokk jotaay soññe bii dañoo jàpp ne ci beneen liggéey met mën a ci beneen liggéey fii waaye noo koy ànd ci biir ànd gi nag démb rek tase am na sun ndey daara joo xam ne bu soxna su mbàkkee mu mi ngi sun kanam jëwri ñi nga xam ne mooy ñu topp ci man sëñ Xaadim Mbàkke sëñ Murtala Seck ñu dem na ñoom ñoom ñëpp démb ñu ngi fi woon kon léegi nag nañ ma euh, jéggal mënuma lim ñëpp waaye nañ xam ne kenn ku nekk fa nga ci daan jàppe ak na nga ci nekkoon noonu rek la kenn ku ne ña nga daan soññ na nga leen soññ na nga leen wax na kenn ku ne loo daan jot na nga ko jottali ñu jiite mbooloo yi ñëpp nu mu daan demee daal daan demewaat ba réunion yi bu ñu ko waree defaat bu ñu waree wax ci rajo yi bu ñu war a yebal mbooloo yi bi ñu war a tàmbali liggéey bi fu ñu war yóbbu oto yi fu ñu war a yóbbu xéwal yi lépp non nan ko daan nase nan ko nasewaat xanaa day yokk suñu yitte rek fedd la suñu laxasaay ndax mu gën a yomb maa ngi soñ ñëpp di déglu di nekk ñëpp di tàllal ñoxol ñëpp bëgg na ànd ko di ñaan nag ci barke Sëriñ Tuubaa suñu borom bàyyil nu Sëriñ Muntaxa wéral na ko bàyyil na ko fi waaye nag ñen daan saxal liggéey bi kenn tam kenn ku ne maa ngi ñaan yàlla defal la jàmm ak wér jëli fi mbas mi defal nu yokk defal nu xéewal ba kenn ku ne noo ci bëgg a doxe nga mën ko caa doxe ba liggéey bi di gën a yomb liggéey bi gën a yomb suñu mbir yëpp di gën a yomb tey ëllëg ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li ab tàmbali la buñ bañ yëgle na liggéey baa ngi ñëw li ci des nag ci àggee dañ ko gën a wax jàpp nañ nag benn paro safar bi ñu ko jàpp def du sori juróom-ñeenti fan ci weeru septembre non waaye nag bu gën a jege dañ gën a génne date bi ba mu gën a leer réunion yi ñu war a danañ ko waxaat noo ngi ànd ak sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah